mbokk ñoo ko barkeeloo ti sëñ Touba sëñ Naar sëñ mi nee na waa Turquie yi nga àndal yëg na seen liggéey démb tey door a ñëw sëñ Isaaxa wax na ko jàppal leen ko muy kóllëre buñ fasante woon nag yow nga jàppal leen ko sëñ bi nee na na leen ko nee na jàppal na leen ko am naa dee soxna jaara jëf beneen bi ci topp ñoom dañ laa indiloon ay dàll ca Touba nga wax leen ne yi nañ ko indi ca daara ji biñ ko indee ci daara ji dañoo ñëw ci bis bi fekk ñuy réunion bëgg ay tappi yu ñu lal ci classe yi ngir la waxoon sa ñëboo jaxate léegi seen gën lañ ciy def mu dem daara ji wala ñu xaar leeral naa sëñ bi seen seenu liggéey ah. leer na ko nañ itam nag lu ci bare bare bare bare xam na ko am nañ tàmbalee ba fii ñoom ñii nag bi ñuy day dal yi mujj indi ci sëñ bi Touba. waaw sëñ bi dana leen nañ ko indi ca daara ja waaye bi ñu egsee ci daara ji nag dañ faa fekk dañ faa indaale positif bu rëy mooy dañoo ñëw fekk ñuy def réunion ñun gis ne classe yi war nañ cee def ay tappi foofu la jógee kon loola dañ caa yem. waaw waaw ci yemee fi saa rek. Mm-hmm, mm-hmm. lañu woo bokki taalibe yéen a turki fi saasi. ñooñu daal di daje ci jàkka def réunion. ñu daal di yónnee nombre. métrage bi nga xam ne moom la ñu soxla ci tapis ñu daldi di daje wut ko fi saasi. Ah, waaw dañ ne woon nag dañuy bàyyi bu ñu siyaaresee indaale tapis. ndax dàll yee moom indi nañ ko ba noppi. Ah, waaw waaw sëñ Sadee wax na ko ba noppi am amaat yi tey nañ nun lu ne. ñoom nañ ko xam. suñ ko xamee la cay seen wàll. Ah, danañ ko def te buñ ko defee ba noppi danañ ko xeeb. Ah, loolu loolu leer na sëñ bi. moo tax ñu ne dañuy ñëw leer na. ah mille mètres loolu li baax yàgg na dana bii la ñu indi. qualité a mbaa nii la mel wala mu gën a soxla wala nii itam dañ cee taamu woon ñu wutal ñu yoo xam ne nii bu bu tilimee mën naa bañ a feeñ moo tax ñu wutal ñu yi ñoom dañ cee dàkk suñu bëgg ba noppi door koo def saa ñoom noonu lañ defal doxaleeg noonu kon kon euh, foofu amoon na aspirateur. aspirateur am nañ ko. xam naa nag da ngeen koy yokk. loolu loolu laa bëggoon a wax. Mbacke ñoo ngi bu baax. loolu ñoo sàkku sax waaye ñaan rek euh, soxna yi am na ci ñoo xam ne. ñu ngi fa commencé dem njaboot. waaw te fi mu toll soxna jaara yi mi ngi fay commencé bari. waaw waaw moom maay seeru Baye Fall comme li ko waxee woon. ñuy sàkku nag licence boo xam ne bu ñu tolloo ci dem ci daara ja rek dana mën a yemb ñoom jamono yëpp nag ñu ma koy sàkku ma ne ko bu neexee sëñ naa ko yegg sëñ bi bitti moom toujours maa koy ci maay jéem mhm. waaye ñu daara ji demee daa tax mun mun ta bari lool ndax mhm. Ablaye wax naa waaye teewut nag incha mhm. allah maa nga xam ne lu mu tuuti at mu jot ngeen am ñoo am ci benn kii waaw waaw wu ñu toll rek ma jox la incha allah ki ci toll merci dañoo ne léegi bi ñëwee ci sëñ bi koo jox lii wax ne moom gi sëñ Tuubaa moom alxuraan te waxe ko nu ne ci wet gu ne motax li ñu jëmmal ko ci niko sëñ bi waxe won mu hadiyatan wa sadaqa wa samanan wa li yudimu nafaqa motax ñu jox la ko addiye sëñ Tuubaa Thank you. waaw kay jërë ngeen jëf soxna yi moom xam naa lii moom na moon nañ ko sax nag <laughs> dañuy waat ak yéen sàmbul kon nag ñoo ngi ciy gën a sant rek bu baax a baax. di liggéey bi te man daf maa xam naa ne gaaw na lool. daf maa bett sax nag te itam day loo xam ne nii. xam naa ne lu mel noonu rek mooy tax xel dem ci. waaye da mënutoon a ñàkk. te xel nekku ci woon lool. looloo tax euh, alhamdulilah. bi nga xamee ne kon dem ngeen fal defal ko ci seen bopp. gis ko xam ne lii mënut a ñàkk. ngeen daal di koy sasoo daal di koy def ci saa si. te itam loolu bari loolu wax dëgg yàlla kon nag yàlla ngeen koy gën a mën rek. nga xam ne lépp lu ngeen ko ñi ngeen ko bëggee lépp lu nga xam ne rek jublu ngeen ko ci maanaam wax nañ leen ko te ngeen kii ko rek ngeen daal di koy def te ngeen ko bëggee jërëjëf jëm nag dañ sant bu baax rek jigéen ñi ñëwati nag da nga ma leen <laughs> nag da nga ma leen gën a santal te liil ma leen ñëpp waaw kay waaw kay waaw waaw xam naa ko xam naa ci dara kay waaw waaw waaw waaw Cheikh waaw wax nga dëgg kay wax nga dëgg daa leen góor jërëjëf mbokki jullit yi mbokki taalibe yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu noo ngi leen di nuyu mbooloo mi fi teew ak ngi nuy bàyyi xel di leen ziar leen baalu àq te leen balaq di jiital ci nuyoo ak ziar bi Serigne moom Cheikh mun taxaa di ñaan yàlla su borom yàggal ko fi te wéral ko ba naal yi nga xamante ni bii fekk na gaa yu baax yi naal ko Serigne Touba mu yeggale naal yëpp ak naal yi boppam yi nga xam ne moom la naalal Serigne bi mu yeggalal ko boppam taxawul ko boppam tànd ko ak taalibi yëpp ak jullit yëpp barki borom Touba ñuy amaat mbégte nag ak contentement ci daje bii nga xamante ni bii moom la ñu daje day taalibi yuy sàkku ngërëm képp di daayira boo xamante ni mi nga bàyyi ko ba Turki suñ jëwriñ ji sëriñ Amdi Moustapha Guèye jiite fédéral daayira bi nekk foofu yëpp muy daayira yoo xam ne dafa ajuwaat ci biir daayira bii nga xamante ni moo fi teew sëriñ Amdi jiite ko Amdi Moustapha Guèye mii ak mbooloom jëwriñ ñi nga xamante ne bii ñoom la seqal liggéey bi sëriñ Abo ñu ngi lay ziar toxna maam Awa Dem ñu ngi lay ziar bu baax a baax a baax ak sëriñ Abo Jaxate di ñaan yàlla suñu borom liggéey bii ngeen di liggéeyal sëriñ Tuubaa ak soxna Jaara ci gone yi yàlla na ko sëriñ Tuubaa ful ba mu saawaan ci njaboot gi yëpp ñu jote ndigal nag si jëwriñ ak mbokk taal bi nga xamante ne bii ñoom la bokkal liggéey bi muy kilifa yi ñu àndal yëpp muy commission culturelle bi nga xamante ne bii ñoo nekk Turquie ak imaamu daara ja ak ñëpp teew nañ fi ak kilifa yi nga xamante ne bii ñoo liggéey bi ak it daayira Soxna Jaara bi nga xamante ne bii moo nekk fee ci réewum Turquie ñoom it teew nañ ñu àndandoo jébbale tey liggéeyu daayira addee Serigne Touba ji nga xam ne moom la ñuy dajal at mu nekk di ko jébbale Serigne Mountakha nañu ko daa defee at mu ne ren mu yaatu ci ndigal li nga xamante ni moom lañ jote woon ci sang yu baax yi jële ko ci sunu sang bu tedd bi sëriñ Naar Diop Assane di ku yàlla baaxal ñu ñaan moom suñ suñu borom yàggal ko fi ndax moom lii mën na ne ci moom la sosoo ndax teewub liggéey bi nga xamante ni moom la fi doon liggéey si moo waral ba liy sos si muy moquette yi nga xamante ni bii moom lañ amoon ndigal 800 mètres carrés yoo xamante ni bii moom lañ waroon a moquette daara ji. boo ko jëruñ liggéey it yëgee dana da koy def 1000 mètres kon liggéey bi ci 1000 mètres carrés la toll jëwriñ ñu di sàkku it ci naar bi nga xamante ne bii doon jégal sëñ bi ci naar bi nga xam moo ko liggéey it waxtu woo xamante ne bi mu ne bu it mën nañoo amaat même qualité bi ak même couleur bi loolu pour ñu dalal ci xelu sëriñ bi bu baax baax a baax a baax ndigal li nga xamante ne bii sëriñ Ablaye sëriñ Sakho jox nañu ko ak it léegi muy jëm ci eh, aspirateur yeeg ya ci aju incha allahu rabbi ñu ngi koy ñaan sëriñ Touba ndax ab ab mag dañoo wax lu am solo dañu liggéeyal sëriñ Touba lu am solo la waaye Serigne Touba liggéey loolu da koo gën a wér te ñun gëm nañ ne lii Serigne Touba moo ñu liggéeyloo kon ñu ngi ciy sant Serigne Touba bu baax a baax a baax a baax a baax di sant kilifa yi nga xamante ne bi ñoo lañ fekk si te di leen ko jébbale di ñaanit ndigal loo xamante ne bii lépp loo xam ne ca réew mi ñu nekk muy réewum Turki ab liggéey mën na faa jóge ñëw fii ci daara Soxna Jaara ji noo koy sàkku ngir jëmmi Serigne Touba ngeen baaxee na ko te jëmmi Serigne bi rek tax ndax fas yéene nañoo ànd ak yéen ci liggéeyu Soxna Jaara bi li àndandoo ko ak Serigne Mountakha ndax danoo fasanteeg moom coloré goo xamante ni bii fee cirque la ñu fekkoon defal ñu fay loo xamante ni bii jafe na nit defal ko mbokkum jullitam waaye cant gi ñu ko mën a cante mooy liggéey liggéeyu Serigne Touba bi muy liggéey ñu fas yéene jee ànd ak moom suñu kéem kàttan di sàkkul ñaanit mbokki taaliba ya fa nekk te jafe-jafe këyit am ci ñoom suñu borom yombal ko ñoom it ñu mën a teew di ànd ak ñun liggéey si liggéey bi ña fa nekkit te jafe-jafe yi ñibbi si mbaa jafe-jafe ñëw seet si njaboot gi am si ñoom yàlla leen sëriñ bi tawféexal ñu dabu ci xéewal ba waxtu bu ñu tollee ci fii ñu àndandoo ak ñun ñëw ànd liggéey liggéey bi nga xamante ni bii moom la ñuy liggéeyal sëriñ Tuubaa waxtu nekk kaddu yi nag xaw naa gudd waaye ñu ngi koy tuubal sëriñ Tuubaa bu baax di leen ko tuubal te xam ne lu ci jub rek tawféexi sëriñ bi la lu ci matadi ñu xam ne matadi doomu aadama rek jëruñ bu amee lu ci manqué rek ñu àggale ko. yi leen sëñ war a jox nag mm. na ñëpp maase xam ne kàdduy sëñ ndax moom bindoo wut noonu waaye sëñ ko xamal ne ko ñaari nit walla ñetti nit bu ñu jógee ngir man ba egsi ci barab bi nanga ma waxtaanal ak ñoom dàggil ma leen ñu xam ne alal ji ñu yor joxe ko ci yoonu yàlla lañ ko joxe la muy jur ci njariñ ëllëg ak tey na nga ko wax ak ñoom waaye moom bindoowul sax toog ak mbooloo di wax ak ñoom waaye ndigal la ci am kon nañ ko teewlu mhm. te xam ne kàddu yi sëñ Muntaxa lay joxe loolu na ko ñëpp xam bokki jullit yi bokki taalibe yi ñoo ngi leen di nuyu yéen ñëpp di leen siyaara itam di leen masawu coono fi ngeen jankontel ba yegg fi di len sante itam ci bay gi ngeen ñu bay xel ba japp ne mënu len limuy xat-xat ak li yitte bari bari ngeen seddunu ci seen waxtu ne mënu len ñoo ñaka nemeku ñoo ngi leen ciy sant bu baax di leen jottali cant ci ni ko sëñ Abdoulaye waxee léegi ci turu andal bi di leen ko jottali ci sunu turu bopp ak mbooleem ñi ñu di saytu bi di ko jottali ci mbooleem kilifa yi fi alquran ak mboolem soxna jaara yi ko fiy jàng ñoo ngi leen di sant ci turu ñooñu ñëpp ndax liggéey bi ñooñu ñëpp ñoo ko bokk mu mel ne ñu ko sëñ bi waxee léegi rek ndigal la rek ñu ci barkeelu waaye sama cawarte sax matewu ko fi mu ne ndax suba ba léegi mbooloo mu génn meneen dikk te mu dikk nga bëgg a sànni kàddu day mujj metti lool waaye ngir yéene rekk moo tax ñu ko def te daanaka ndigal li waaye daanaka am na mbooloo yoo xam ne daanaka wax leen li ñu nekk lu muy jëriñ daanaka xaw naa mën a ñàkk ndax yi liggey bu reuy bi ku koy liggey ak mbokk yi ci ñu andal ñi indi yere yi liggey yu melni ku koy def dafa fekk ne la ngay def xam nga ko dafa fekk ne xam nga lamuy jeriñ tay ak ëlëk motax nga am pastef bu toll nii ndax lu toll nii kat neew na lu ko nit di def ci lo xamne ne xamut lu muy jeriñ kon fàttalente rek la. fàttalente nag sun borom ko digle wa zakkir fa inna zikra tanfahul muminin fàttalente rek lañ ci jublu soññente fàttali goo xam ne gi fàttalik jaamu yàlla la du fàttalik goo xam ne sax fàttalik ku fàtte la ah Seydina Omar ibnul Xattaab kenn ci saxaaba yi la ku moo magoon Seydina Aliyu lu bari Seydina Ousmane kenn ci saxaaba yi la moo magoon Seydina Aliyu moom lu bari ba mën koo jur te ñoom ñëpp ñoo ànd bokk ànd ak yonent bi sallallahu alayhi wa te lu Seydina Aliyu mas a dégg ci yonent bi rek mën nga ni dégg nañ ko Lumulian len war kuchal tibbe ko ci alquran ba waxi yenen tibbi fek nañu mas ko xam fek nañu mas ko deg waye kenn ku ci nek ci ñom da nga wolu sayyidna Ali mu ñew nga ne ko war ma mu war la ca la ngeen bokkon xam la ngeen masun bokkon deg mu war la ba say xogn fa daje ci sa day sikkim mu won la am ci khalifa yi kuñ daan wax Omar ibnu Abdul Aziz daana ko def daana wo borom xam-xam yi gëna mag di len jox addiya ju takku di di sakku ci ñom ñu war ko ci lo xamne mo leen ko gëna xam ñu diko war ba mu joy ba ñu yawi ko mu yawi ko te lañ lañ doon wax lepp lu mu xam la nak war gi fatelent rek la ñu di len fatali ne liggey bi ci kuy liggeyal yalla liggey mënu ko gëna kawé kawe ndax da aju ci alquran te alquran moy li gëna kawé ci lu nekk ci kaw suuf lu ñuy jaamoo yalla te damay wax ne nit yalla yépp kenn ku ci nekk suñu borom gindil na la bopam so xasse am yitte jog bëgg jëm ci mom moo lay joxoñ fa ngay jaar ne yi ngay jaar yegg si ci man kii nga xam ne mooy suñu suñu wéeruwaay di say sayxul xadim moom it di kenn ca ñooña jaar ak boromam foofu ba mu amee yitte yegg si ci moom suñ borom da ko wax fu muy jaar ba yegg si ci moom bàyyiwu ko muy làmbatu dallani allahu ala muhammadi wa qaadani muhammadun lissamadi moom xamee ne yitteem mat na ci moom rek la bëgg a yegsi dane ko kon jaaral ca kee mu dem jaar ca ko jàpp ci loxoom ba yóbbu ko ci moom am na dem na ba am ba mu gën a kawe loolu ginnaaw bu mu ko jaarloo ci sangu sangub ñépp xam ne mooy yoon wa am na fu mu waxee ne dallani allahu yàlla won na ma boppam loolu lépp nag mi ngi ko ame ci jàpp ci alquranul karim fu ne bind na ko fa ba mujj di dekk di ku di di ku ak boromam waye mu wax ne dekkale gi ma sama borom nak? Japucal ci alquran momako Jawar tu may jawartu rabbiya bil Furqani. manam ci khasida ga dane jawartu bil furqaani rabbiya wa waye tu rabbiya la bil Furqani. ci ku jangale ci Mana? jangale manam dekkale na ak sama borom fuma jaar ba ak mom dama japp ci rek ba yegg Mom seigne touba mom waxna ci alxuraan yitam ci walu jang ko jangale ko ne ku yalla denk tout tank jaarale ko ci yow te xel ma nangu alxuraan nga fexé ba abdunam dënnam nek ca nee mo gën ci yow gën ci mom aduna ak li ci biram lolou kon ku fonk alquran ngi wax de mune it bu fekke ne xel ma alquran it ko xamal mulki ak suuf te jangal koy faratam lolou la bi dan digle kep ku ma sa ñew ci mom tay goné di tout tank limi ñëk laaj moy nu mu def ak téré bi mune téré bi nak alquran rek tax muy wax ne ko moom de dalagu ko mu ne nañ ko ko dalal bu ne tollu na ci barab sangam te yegagut mu ne nañ ko jox diw mu yeggale ko bu ne watt nako nak mu dogo sante sant lum koy sant ci diko ko ci liggéeyloo moy di jang ak di ko bindal lolo ku ko mas man musula def loo lenen luddul lola kumu massa yobbu eh, ya ngay bay dugub mba ëreen mba lenen. dafa fekk ne loola dafa xaw a weesu ci yow mu ne ganaaw weesu na ci yow xaaral ma joxoñ la loo xam ne moog liyeeyam mooy ñii di jàngal xuraan ak di ko jàngale te dëkk ci demal di bay di leen indi lu ñuy dunde boo leen dundalee mel na ne yaa ngi jàngal alxuraan mel na ne yaa ngi koy jàngale loolu mooy kon ter ña ñuy terbiye kon ñi daan ñi mu daan liggéeyloo ci leneen ñépp ñooñu ñu daan tërbiyee ñoo leen daan dundal ah, ngir bëgg leen a yóbbu ca loole kon nag loolu itam mooy lii rek fii sëriñ bi dafay indi ñoo xam ne jàng alxuraan ak jàngale ko mooy seenub liggéey ana al-layl wa atrafa an <coughs> ñooñu nag kon sëñ baa ngi leen di def loolu nga xam ne ku ko mën a defal du la def loo leneen a ah, bu amee ca mbooloo mi nag koo xam ne mën naa def loolu wala xëy na man nga ca sax am na ci yéen ñoo xam ne ña ngay jàngale alxuraan di ko jàng am ci yéen ñoo xam ne ña ngi koy jàng waaye jàngale ko waaye nag ñàkku ci it koo xam ne féerut ijji ba mën koo jàng sax ndax mbooloo mel noonu waaye kooka sax ñi ma njëkk a tudd dama leen a jëlale ndax ñooñu ñoom am nañ ay daraja daraja nar cee yokkaat yeneen daraja ndax ba ñu mënee jàngal xuraan te di ko jàng di ko jàngale lañ yem ak ñun ñii ñii nekk ci fii di ko jàngale ak di ko jàng ñoo bokkut liggéey waaye nag ñu ñu ëppalee ñu wëlbatiku foofu seen alal di ko ca def te yàlla taw fexe leen alal jooje xëy na te xañ ko ñeneen ah waaye nag ñi nga xam ne firiñu ijji ñoo ñaag ëppati taw feex ndax ñoo ñoom mënuñoo jàngal xuraan ndax firiñu ijji waye ci seen jëf ji yalla yëkëti na leen bañ tollok ñukoy koy ak di jangalé waaw ñu tolloog daraja di bok ak ñom ak pay ëlëk sëñ Tuubaa dafa wax ne bama xamé ne yowmal qiyam kenn ku nekk suñu borom dalay wo ba nga tew yaak mom kep kenn du leen wettili wa kulluhum aatihi yowmal qiyamati fardan Bama xamé lolu te dañuy ubbi sab téere itam di ko jàng di ko lañ bat amma man utiya kitaabahu bi yamini fa sawfa yuhaasab xisaaban yasiran ba ca des noonu mooy kon mu ne ba mu xamee loolu la tànn alxuraan mi nga xam ne ci sunu borom la jóge jaar ci jibril wàcc ci yonent bi di delluwaat ca sunu borom def ko ab liggéeyam faw nga xam ne bu ëllëgee bu ñuy ubbi ab téereem alxuraan rek lay doon maanaam alxuraan moom li ci sëñ bi wax kenn mënu koo nettali waaw li mu ci wax lépp kenn mënu koo nettali wax na ne itam alxuraan yi nga xam ne mooy noon yi nga xam ne mooy tax nit du gaaw a yegg ci boromam te ñi jóg ci jëm ci yàlla yëpp loolu ñooñu loolu di seeni pakk yu leen di pakk di leen eh, eh, yeexal seenu dox mbaam muy tax sax far dootuñu dem yooya la ma ca musal mooy jàpp ci alxuraan am na sunu jenn maam ju ci wax ci wolof di wax ne seytaane àdduna bànneex ak bakkan ñi ngi nii di kenn ngay di di di di ñi ngi nii gembul la seytaane àdduna bànneex ak bakkan ñi ngi nii gembul la ngay kenn ñuy mbooloo te yow yëgu la waaw seytaane aduna bànneex ak bakkan ñi ngi ni gembul la ngay kenn ñuy mbolo te yow yegula say nona ngi yaangi ni bo boo kër bañu daw lo man di sakku lu reey reey reey mu jappandi la noonu yaa ngi noonu noonu yooyu nag sëñ Tuubaa dafa wax ne lima ma ak ñom moy japp ci alquran moy mo fa mu koy ci jaawartu ndax ba mu ne jaawartu rabbiya bil furqaani lu mu ca teg dane malaktu nafsiya sax saxtu laxin axastu min dunya usaadi lil jinaan wan qaada lil hawa ay yëpp dàkkul nañ ma seytaane baan sama bànneex topp na ci sama ginnaaw sama bakkan moom naa ko waaw yooyu yëpp ngir ci alxuraan moom yooyu yëpp ci alxuraan la ko amee waaye liggéey bi ñaari liggéey la mooy ginnaaw liggéeyub alxuraan jooju dafa am beneen liggéey bu mu bu lool boo xam ne moom bu kawe la te mooy di joxe sa alal ci yoonu yàlla mooy al infaq fi sabilillah joxe sa alal ci ci yoonu yàlla moom it day day lu kawe dana waral ci tënk dana tax a gudd fan ci àdduna yi ay njari lenn ci njariñam lay tudd yaakaar naa ñëpp bëgg a gudd fan dana tax a gudd fan joxe sa ci yoonu yalla dana far bakar. amna ko wax legi nañu ñaanal yalla fal suñu bakar. dana far bakar. joxe sa alal ci yoonu yalla li ñepp bëgg moy tabbi aljana dana tabal nit aljana waaw joxe sa alal ci yoonu yalla dana taxam wërseuk joxe sa alal ci yoonu yalla dana yok wërseuk joxe sa alal ci yoonu yalla dana barkel wërseuk ak yeneen ak yeneen ak yeneen ah ba tax na fi ngeen jàpp daal man gisuma fu ko gën a kawe la ca des mooy yal na yàlla nangul leen yal na yàlla nangu leen li ngeen seenub liggéey bu ko nangoo yal na ko ful te yàlla bu ci seytaane am cër yalla bu ci banex am cër yalla bu ci bakkan am cër lepp yalla na yàllay kese ndax loloy tax ngeen jariñu ci bu doonee yàllay kese rek njariñ la tonawu lol yalla mom xolut neew gi ak bari gi xol bi mi joge lay xol kon nak ku ci joxe junni ak joxe deureum bu pas pass ba selé ñoyam yalla yalla yok yàlla yokk yi ba li ngeen yéene at mu jot ngeen diko gëna man parce que fu na lool wax deug yalla ndax comme niko señ sëñ lay waxee rek señ bi mësoon nañu gise mu and ak lenn ci talibé yi ñu amone liggéey bu ñu andi wone ba ma doon ca sànni kàddu di di fàttalanteeg ñoom lu demee ne lii may wax rek ca soxna si bëgg a kàddu ca la ko waxee woon ne ah fii ñu de eh, bokk na ci yi ñu yittewoo ay tappi yu ñu lal a ah, booba la la la la wax ne rek jàpp leen na sotti na waaw jàpp leen na loolu moom sotti na waaw booba léegi wax dëgg yàlla yàggati na lool te mi ngi nii. dañ ne wax dañoo wax ne jëf nag mën naa yóbbaale wax waye wax mënta yóbbaale jëf sen sen sen jëf ji tekki na lépp daanaka jekkeeti di ci wax man na ñak waaw dañ ko dañ ci barkeelu rek ngir ndigal waye xamni ni yeen dal wax deug yalla sen pastef sori na yal leen ko yalla aral waaw yal na boole liggéey ñun ñepp li ñuy def suñu borom boole ko nangoo waaw Euh, xam naa bu ma naay jox soxna si euh, euh, kii bi bu fekkee bëgg na cee sànni yenn kaddu yu ndénkaan wala soññi mu def ko mu noppee rek ñu ñaanante waaw kay wasalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokki jullit yi mbokki taalibe yi noo ngi leen di nuyu di leen ziar di leen baalu àq di rafetlu wax dëgg yàlla liggéey bi nga xamante ne bii moo ñu taxoon a ñëw Poroxaan tey muy jébbale addiyee Serigne Touba ji nga xamante ne bii at mu ne danañ ko jébbal ki fi nekkal Serigne Touba ànd koog jëwriñ Serigne Touba ji nga xam ne moo jiite daayira Kanzul Muxtadin Touba Istanbul Touba Turki gépp rawat na Istanbul ak ñi ci biir fédération bi ci ajoog ñëpp ginnaaw loolu it jébbal nañ addiya soxna jaara ji nga xam ne at mën a jëwriñ soxna jaara ak ñu ngi ko bokkal daan dajale addiya ji jébbal ko sëriñ mun Mbàkke ak sëriñ Isaaxa mi nga xamante ni mooy coordonnateur généralu daayira soxna jaara bi nga xamante ni bii mooy nekk biir Poroxaan ren it liggéey bi yokk te yokk goo xamante ne bii alhamdulilah rabbil alamin la ñuy wax ndax mel na ne sëriñ bi ñëw liggéeyloo ci biir daara ji nga xamante ni moom lañ taxaw tey di waxtaan ak yéen mooy daara soxna jaara ji nga xam ne moo nekk ci biir Poroxaan lu ëpp juróomi téeméer dongo nekk fi di fi sàkku xam-xam di fi jàng arxuwaan di fi wattu arxuwaan ak na jigéen di demee kër yàlla sunu boom dimbaluñu nag ak dimbalu sëriñ bi ñu am ndigalal sëriñ Tuubaa fa seenee mokkete classe yi nga xamante ne bii moo nekk ci biir école bi yëpp mu tolloon ci 800 mètres carrés ci ndigalul jëwriñ ak bureau bi nga xamante ne bi ñoom la seqal liggéey bi mu yaatal ko ba def ko 1000 mètres liggéey bi andi nañ ko ci diir bu gàtt andi nañ ko fii ci biir Poroxaan daan leen ko wan ci biir image yi ngeen bàyyi ko bu baax a baax a baax ñuy bàyyiloo xel mbokk taalibe yi liggéeyub soxna jaare bi ak bàyyi xel goo xamante ne bi sëriñ bi na ko bàyyi na ko xel addee sëriñ Tuubaa ji rek ren toll na ci lépp lépp lim bi toll na ci fukki million waaye ci niñ ko séddalee ak la ca aju huit millions lañ jébbal mun Mountakha muy addiyee soxna Serigne Touba ji nga xam ne at mu ne danañ ko jébbal di ñaan ñu yàgg fee ñëw yàgg ko fee fekk yàgg ko ànd ak taalib ak jullit yëpp. addiyee maam Serigne Fall ji toll ci un million cinq cent ñu fas yéene koo jébbal Serigne Amdi di ñaan moom it 1 million 400 di ñaan yéen bi nga xamante ni bi yenu na ko fas yéene ko fas yéene koo liggéeyal soxna jaara suñu borom bàyyi ko fi te kattanal ko mu liggéeyal ko te ànd ko ak Baye Fall yëpp ak murid yëpp addiyee soxna jaara ji it na ci parrainage u sept maam jaara muy 1 million 400 boo xamante ne bii waa kër Soxna Jaara si njiital Soxna Roqee Càndum ak ñi nga xam ne ñoom la seqal liggéeyam ñoom Soxna Asumba Jóob ak ñëpp rek moo ñoo ñoo ñoo ko doon bàyyi xel doon ko wattu yàlla suñu boom dogal jébbale nañ ko mu toll ci 1 million 400 ci parrainage bi jébbale nañ ba tey it waa kër Soxna Jaara jébbale nañ addiyee Soxna Jaara 1 million de francs CFA Sëñ Muntaxa muy àllarbay Soxna Jaara yi nga xamante ne bii moom la ñuy dajale ci semaine bu naka noonu it kóllëre gi nga xamante ni bii seqoon nañ ko ak Serigne taxa fasante ko moom fële ci Turquie ziare nañ ko enveloppe deux cent mille francs ak it Serigne Issakha Mbacké mi nga xamante ni bii mooy jëwriñu liggéey bi di kenn ci daayira Turquie ci fànn yëpp. moom it ziare nañ ko enveloppe cent cinquante mille francs ginnaaw loolu ak ziar yi nga xamante ne bii yu doon dawaan yu def fii ci aju ak oto bi nga xamante ne bii moo jëlee moquette Ndakaaru andi ko Euh, fii ci Poroxaan fay nañ ko deux cent mille francs boo ko arrondiree mooy dix millions yi nga xamante ni bii moom lañ leen limal ak la ci ajo ñuy santaat Serigne Touba nag mi ñu tawfeexal liggéey bi ñu dajale ko ànd kook suñuy mbokki taalibe suñuy nawle te jiitaluñu ci lenn lu dul doyloo ak yaakaar ne mën nañoo ànd wattu liggéeyu Serigne Touba bi suñu borom tawfeexal ñu ñu wattu ko ba jëbal ko fi nekkal Serigne Touba jëbal ko it ki nga xam te ni moo fi taxaw taxawaay soxna Jaara Buso kon alhamdulilah rabbil alamin la ñuy wax santaat Serigne Touba di ñaan ñëpp fi teew ren bu teewee ñëpp teewaat fi kenn bañ a manqué ña nga xamante ne bii ña nga turki it te jafe-jafey këyit wala jafe-jafey àdduna jàpp leen ba mën ñoo teew yàlla na ko suñu borom tawfeexal ci barke pàkk bu tedd bii ñu nekk lépp yemb ba ñu àndandoo oto yi daanaka daan fees kër gi waa waa Ilaasa daan jël ay biis di ñëw fii di ziare si wala ñu dem Touba di fekk sëriñ bi wala fu mu mënti doon ci biir réew mi wasalaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi ziar ñëpp di balu ñëpp ak tey baal ñëpp ak jëbal sëriñ naar kàddu gi mu jot la ci ay kàddu asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu kaddu yi nag day gàtt ñu tënk ko ci ñaari kàddu ba benn ndax sa dex mi mboolem lu ma toon leeral rek leerale na ko liggéey bi. waaye nag kaddu cant daa munta ñàkk moo waral faaw ñu yëkkati ko muy cant goo xam ne bi ne ñun waa ñun waa daayira bi Kanzul Muhtadina amel nañ ko suñu jëwrin ci liggéey bi nga xam ne bi ne ànd nañ ko moom di ko liggéey muy kaddu ñaan nag ñaan gi nag mënul paas yi ñaanal ko yàlla saa borom guddal aw fanam wéral ba moo leen naal yi xam ne bi ne am na ko ñu ànd koog moom bokk ko liggéey téeméer yu tàmbalee ren ñun ñëpp ci bi Sëriñ Touba ñaan yàlla ak ci barkib sëriñ bi jafe-jafe yay nekk ci réew ma moo xam ay kayit la moo xam koom la bu nit di wut te amagu ko yàlla na ko Sëñ Tuubaa jàpp na la ñu rafet njot lool suñuy jëmm nag te am yaakaar ndax li tax ñu am yaakaar mooy liggéey bii ñuy liggéey Sëñ Tuubaa xamal nañu nangu na ko ndax bis ban demee ci sëñ Muntaxa seen liggéey bu tedd boobu ci seen daal ak seen kol ya ba sëriñ bi jox ñu ndigal nañu nan ko jàppoo indi ko fii te juru gàmm lan demoon nag gàmm go la muy xat xat xat xat xat ba mu gisee ña ba mu gisee ci liggéey bi ñaar gis kol gis dàll daana ñii lu lu mu xat-xat nañ woo ñu ñëw Touba gërëm la loolu ma leen ko seedeel bisu gam la mu xat xat xat xat ba sëriñ bi tegee liggéey bi bëtam daane lu mu xat xat ñi nañ fexé ñu ñëw nga xamni ci bisu gam la may xat xat 9 h ci guddii fekk na biir kër sëriñ Mountakha mën a mbooloo mi andalon sëriñ bi duggal ñu ci néegu bopam ba wax ma ci làmmiñal bopam na ma nañ jël liggéey bi yubul ko ko proxan ci soxna maam awadam dem ñu tegal ko fa bi ñu ñëwee fii ci proxanit soxna maam awadam dem bi mu gisee liggéey bi naaw ko mu doon pass pass bu reuy ci mom daf ñoo wax nañu suñu daara suñu école bi kër xalé yi fi ñu tok waw na ay basang lañuy tok toog te yéen seen fofé kat taamu na leen ci ci baax kon ay makat suñ ko mënee am bëgg nañ ko ma fekk ànd ak sama jëriñ suñ ma naar suñ ma naar daal koy xamal na ko liggéey bi kat incha allahu taala comme wax ngeen ko bëgg nañ ko dana am tuuti lu may soññaat sama mbokki taalibe yi maa ngi koy tub baax wax nag waaye suñu jëwriñ la sëñ Blaat waxoon moom suñ Tuubaa laay waxaat jëwriñ kenn du ko jiital di ko fakastal yoon waa ngi nii rek la suñ demoon ci sëñ Muntaxaa tey tey bisub tey moom sëñ Tuubaa damaa mas a ànd mu dem di ko siyaare ji ba ñëwee lii ñu dal dal ñu moom sëñ ñaara seen Jóob daa toog ba ci yàgg daa ne comme daa xat te sëriñ bi nee ne kenn mënta dugg yéen ñi fi toog yéen ñi ma àndal ñëpp toog leen xaar ma moom dong moo dugg gisee ak Serigne Saliou génn daan ne mboolem aajo jole am xool ma ba ma gisee Serigne bi Serigne bi sama Serigne waaye yéen man maay seen Serigne. Serigne bi sama Serigne waaye man maay seen ci na ma kon sunu la tax ñu am ko mooy suñu jëru lan àndal te gisante naak sëriñ bi sëriñ bi seer na kalam ba mu xam ko feeñal ay bëñam ree lool am ci mbégte daal di ñaan yàlla kon ni ngeen seen xel te ne aajo fi indi Sëñ Tuubaa nangu na ñi ñaan ci doole yi Sëñ nag aajo jooluñ fi indi yàlla na faju barkib Sëriñ Saaliw jërë ngeen